asalaamaaleykum mbokk Sénégal ginnaaw bu ñu sante yàlla jullit ci sangam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi amaan mbégte ci taxawaat fii ci bésu tabaski di bës bu màgg di ballu àq waa réew mi te di bal ñëpp àq di wax na nag suñu borom bi nga xam ne moo moom lépp moom sabab yëpp def na ba ren mooy ñaareelu tabaski boo xam ne ñu ngi koy def ci biir mbas mi muy lu xaw a tiis euh, waaye ma bëggoon profiter ci bës bi di ndokkale kilifa diine yi xalif généraux yi ci réew mi kilifa aada yi di ndokkale waa Sénégal yëpp ak umma islamique yëpp ak suñu bokk yi ñu bokkal réew mi te nekkuñu si lislaam ah ren nag comme waxtu wi daaw fekk nañu mbas mi dugg ci réew mi waxtu wi may wax ak yéen itam xam ngeen ni ci àdduna bi mbir mi jógaat na mbas mi nag jamono ji ñuy wax dafa am màndarga bu bees boo xam ne euh, mu ngi wane teel bu gaaw a gaaw si lu mën a law euh, te loolu mooy tax léeg-léeg feebar ñi feebar bëri ba tax na dana gaaw si dépasser capacité hôpitaux yi loolu tax ñu war a fagaruwaat maanaam wàññi dem bi ak dikk bi luñ si mën wàññi ñu def ko lu ñu mën ci takk masque ñu ko ñu koy def ak di raxas loxo yi na ko docteur yi di santaane waaye leneen li mooy ñàkk yi démb rek gis ngeen ni Sénégal recevoir na ay doses yu bare bare yu jógee ci réewum Amérique mu nekkoon don boo xam ne jox nañ ñu ko semaine bi danañu jëliwaat ci Chine lu toll si ñetti téeméeri junni yoo xam ne ñu jëndaat la loolu yëpp bu ñëwee dana nekkaat beneen euh, euh, lu ama am solo euh, weer wi ñu dëgmal muy weeru août am nañ ci yaakaar bu baax a baax si ay junniy junni téeméeri junni wala sax lu ëpp million ay million ci ay doses yu war a jóge ci initiative bu Union africaine ñu tuddee ko AVAT waaye aussi si COVAX loolu yëpp kon mu mel ni ñàkk yi moom lu ci ama am solo la ngir wàññi forme yu jafe yi kon li des daal mooy ni ko kilifa diine yi santaane waa kër docteur santaane ko ñun gouvernement bi ñu wax ko santaane ko mooy ñu yokk euh, fagaru bi ci ndaw ñi surtout ci gox yi waaye aussi si njaboot gi ngir euh, ñu mën a am maîtrise si feebar bi la maa ngi ndokkalewaat waa réew mi yëpp di balluwaat ñëpp àq te di baal àq ñëpp ñu ñaan yàlla jëlee fi mbas mi yàlla may ñu nawet bu baax bi ñu dëgmal muy nawet bu ànd ak barke te bu ñëwee béykat yëpp muurloo ko allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim